mais Pape Sénégal day réew moo xam ni dañu sàggane suñu diine compliqué wallaahi njàpp am na lu koy yàq mhm. julli am na lu koy yàq mhm. sëy yi ñuy def diggante ji góor ak jigéen ñu takk sëy bi mhm. mais am na lu yàq sëy bi wallaahi yenn saa yi nga gis ku fase jigéen lu ëpp ñetti yoon continuer di sëy ak moom te foofa sëy amatu fa boo fasee jigéen trois fois ci charia il faut baada zawji mooy tax nga mën koo takkaat mooy keneen jël ko ba bàyyi ko nga door koo mën a jël Sénégal ngay gis koo xam ni jëkkëram fase na ko 49 ak bii waaj a ñëw muy cinquante te ba tey mi ngi ci buub ñu ne rek yenn saa yi pap ngay takk jigéen mhm. xam nga charia dafa sew mhm. yenn saa yi ngay takk jigéen koo xam ne da ngeen di génn mhm. nga dem ba mu yàgg programme woo woon pour teel koo takk far yàlla def accident am ci seen diggante mu ñëw ni la je suis enceinte loolu la ñuy wax. Eh, accident ah dama ëmb. nga ni ko comme da ngaa ëmb nañu profité ñu mayee ñu. takk sëy bi léegi am na ëmb bi ëmb bi am na deux mois. Mm. ñu takk sëy bi. Mm-hmm. yow xam nga ni moom daa ëmb. Mm-hmm. ndaw si xam na ni moom it daa ëmb. Mm-hmm. ñu takk ko. xam nga ci charia ñu ko yëgee nu ñuy def. Mm. tas sëy bi ci tàng tàng bi. te dootuñu mën a takkanteeti ba yow mal xiyam. ah bon daf lay xaraam sa giiru dund. Mm. complot bi ngeen complot yéen ñaar. nga ni patt mu ni patt. zuuru takk bi jot musol sol lu weexam talal ay tànkam nan merci beaucoup. ta xam na ni dañ ko eumbal mu neub ko. lolo waral yàlla ta sëy bi. tey ku ci accident ci defal costa rek. te bu fek mais nak pap benen sew sew daf ci am. bu fekente ni bi ndaw si dafa eumbu bu fekke ndaw si da eumbu mais xamul ni mom da eumbu waa ji tam xamul ni ndaw si da eumbu vraiment. ñu tak sey bi mhm. ñu dem ba ci biir calculer ni bi ko fi maye ak legi mënu fi ëmb mhm. kon da ëmbul mhm. ñu ne waji yegg nga ëmb bi mëna dedet, ñu ne ndaw si yegg nga ëmb bi mëna dedet. sharia neena dañ koy tass bu ndaw si wusi ne ñu may ko ah, ok parce que wuñ ñom ñaar lolo waral ñu mëna a wat waye cey buñ ko comploowee xaram ti faaqat yenn say pap jigen sa jëkër génn aduna nga wara muru 4 mois 10 jours pour te sharia dafa wax ni jigéen ji nga xam ni bi jëkkëram di faatu daa ëmb kooku ëmbam mooy tënjëm da wax bi bu fekkee sa jëkkër bi muy faatu da ngaa nekk en état yow ëmb bi mooy sa tënji yow bu jë bu sa jëkkër faatoo lëndi lëndi bi ci topp nga am doom yow dootoo jàpp idda pare nga ci ñi ëmbul ñooy jàpp 4 mois di jours alaaji pap lislaam nekkul lu ñuy làmbatu dañu koy jàng bari na ko fase jabaram ndaw sa xaraam ko mu continuer di sëy Mm-hmm. ak moom am na góor ñoo xam ni kafe mm-hmm. gi saful suukar rek may naa la sa baat am na ñoo xam ni kenn mën ta way seen gàmm yow daal mot Fall waaw xam nga nu ñuy def ak yow mm-hmm. li ci des da koy denc ba suba jeex na comme di nga ñëwaat incha allahu taala ci bëccëg bi déjà suba nag Pape incha allah ñu ngi waxtaane ku tedd bàyyi Serigne Fallou bàyyi Serigne Abdoulahat bàyyi Serigne Saliou كني وان خرجت يوم السبت سامنا عشرة لقدمة المختار في سهر سفر كني وان للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمد كتب ابني وان دخ رجل ما منك ديدت منك لطخ منك بسك من لا تأقاف در قلق ما دما فوت أمري إلى رب السماء كني وان توبا لعبد مريد صادق لهم بقدمة أو بحب أو هديات شيخ الخديم بسباك جام جباب إن شاء الله jërëjëf yaa oustaz